nekk suñu kanam ñu war a am luñ ci seet ci moom loola yëpp la ñu war a waxtaanee tey ak monsieur le ministre Amadou Tidiane Wone euh, bokk ci ñi taxawoon euh, keroog fukki fan ak benn weeru mais bi ñu weesu euh, ngir fàttali Oumar Blondin Diop wax itam ay jaar-jaaram ñu ngi lay nuyu monsieur le ministre di la dalal di la gërëm aussi ci disponibilité bi ngir waxtaanee li ma fi junj. waaw maa ngi lay fay soxna Fatou di am mbégte di amaat jataay ak yow. alors euh, ñu tàmbalee wax kan mooy Oumar Blondin Diop tey génération bi fi ne wala yii di ñëw euh, buñ ñu la ni woon kuy kooka loo leen di tontu. waaw li may njëkk a wax mooy ñun euh, ay rakku Omar lañu ndax ku mel ni man judd 1956 moom mu judd 1946 daanaka magee nañu fukki at. Mhm. ba na bi muy taxaw ci mais soixante huit ca France ba mu daan jàngee bokk ci dirigeant yi nga xam ni daanaka soo xoolee vidéo yeeg photo jamono jooju moom rek moo ci ndaw nit ku ñuul ku taxaw wetu Daniel Cohn-Bendit euh, wetu ñeneen ñi nga xam ni ñi ñëpp histoire jàpp na ne ñoo dirigé mais soixante huit euh, dinga xam ni ku teel a yeewu la ku teel a am pas-pas la ñun bokk ñun rakk yi lañu. Hmm. rakk yi lañu maanaam ñun bi ñu xippee ci politique xippi ci wàllu li jëm ci révolution hmm. euh, mooy biñ ko boomee 1973 hmm. balaa booba bi ñu jàppee ay rakam dans les années 71 euh, ci jamono jooju ñun la ñu xippi ci politique ndax réew mi dafa yëngu ni muy yëngoo ci jamono yi hmm. ndaw yi génn Euh, mais 68 yëngaloon na dëkk bi 69 topp ci ak yooyu euh, régime président Senghor bi nga xam ni c'était un parti unique di euh, unifié parti de gauche yeeg parti révolutionnaire yëpp ñu def leen dans la clandestinité moom mu ñëw taxaw fësal ay xalaat wante lëkkale xalaat yi ak ay jëf maanaam taxawaay boo xam ni amul amul dara lu mu ragal ba tax na daf amoon influence bu bëri ci intellectuel sénégal yi euh, yi woote woo gauche am influence itam ci mouvement politique naissant yi nga xam ni ci at yooyu ñoo doon euh, daanaka yëngal jamono ji ma fàttali que la rek ne ca at yooyu moom at bañ ko boomee Sénégal population entière million millions d' habitants la mm. euh, te gis nga tey ñu ngi dix-huit jëm millions dem vingt millions mm-hmm. donc dafa lay jox tegtal ci ne Euh, jamono yooyu Sénégal xatagul woon xat gi mu xat ba ñëpp daanaka xamante woon nañu euh, astuut te doon nañu demlante ndax jamono yooyu téléphone portable yi amul nga xam ni dañuy foog ni ñu ngi jokkaloo fekk jokkaloo wuñu ndax jokkaloo doomu aadama ak doomu aadama dafa war a ànd ak toog dafa war a ànd ak xamante dafa war a ànd ak miinante euh, jamono yooyu nag ñun bi ñu nekkee xale loolu moo ñu gënoon a yee ndax saa yu ñu yu ma xëyaan man bokk naa ci ñi nga xam ni daanaka dara euh, Darabis ba nga xam ni kër famille Blondin fa la nekkoon fa laa doon xëy di fa yendu yenn saa yi sax di fa di di fanaan à ngir bañ a euh, luppe dara ci lii xew kon Omar Blondin Diop euh, outre que vingt sept ans rek la génn àdduna ci vingt sept ans yooyu am na lu mu def li mu def mooy nekk sénégalais bi njëkk dugg normal sup école bu jafe dugg ca France euh, mu dugg fa te ñu ngi fàttali souvent ne président Senghor moom defoon na concours bi wante jàllul woon moom mu ñëw rek jàll euh, bind na itam euh, wax na lu bëri te influencé na lu bëri parce que loolu soo buggee suñ kanam suñ ci àggee ay ñoom Issa Samb Joe Wakam ñu ñu doon ay àndandoom bokk na ci ñi influencé li ñuy wax laboratoire agit art bi nga xam ni ay année bi mu génne àdduna laboratoire Agit Art boobu ci wàllu euh, expression artistique euh, et plastique Sénégal am na ci influence kon dafa doon nit daal koo xam ni wax dëgg yàlla euh, histoire du Sénégal war na ko sulli war na sulli circonci circonstances yi nga xam ni ci la génn àdduna mm-hmm. ndax histoire itam dafa laaj ñuy fóot le linge sale en famille mm. di waxtaan ci sunu biir di seet yan erreur la defoon avant pour que ëllëg ñu bañ a defati erreur yu mel noonu. Mm, loolu mooy njëriñu fàttaliku démb justement alors boo ñu mënee ñëwal ci circonstance euh, décès boobu la ngeen ca la ngeen ca jàpp. ba ñu koy teg loxo ba ba ñu koy mm. euh, ba muy ñàkk ba kanam jogore bañ ko dencoon. waaw moom dañ ko teg loxo parce que rakkam yi euh, te tey ñoom docteur Diallo Diop ak ñi mu àndaloon ñoo décidé woon bi fi président français Georges Pompidou di ñëw Sénégal. ñu seetoon ca jamono jooju naka lañu fatte dëkk bi euh, ngir taaral dëkk bi ngir rek benn président wu France bi ñëw Sénégal euh, mu jur ci seeni xol euh, daanaka espèce révolte ñu ni ah kii de su ñëwee danañu def action déclare boo xam ni adduna yëpp dana yëg ne du Sénégal yëpp moo ànd ak li muy def ñu fas yéene woon ñoom ca booba taal centre culturel français bi nga xam tey lakk ko ak itam ci yeneen euh, pexe yoo xam ni danañu yëngal dëkk bi ba adduna bi yëpp xam ne am na jeunesse Sénégal boo xam ne ànduñoo li nga xam ne lii mooy am. maanaam dañoo sàkkaloon nit ñi fu ñuy jaar ak fu ñu dul jaar ndax ki fii ñëw. mangook te loolu ba tey mooy dox. Mhm. ñu ñoom ñu fippu ca ca jamono yooyu bëgg ko def wante ñu jàpp leen balaa loolu bali balaa cocktail molotov yi di tàkk. dañoo yëgoon bi. Euh, Euh, xam nga rek dëkk bi moom ko hmm. <laughs> ko information yi dafay circuler en tout cas toujours est-il que jàpp nañ leen hmm. euh, euh, yóbbu leen kaso daan leen nag ay daan yu metti hmm. parce que ku mel ni Diallo Diop mi mi mi ngeen xam tey daanoon nañ ko perpétuité perpétuité maanaam mooy dañ lay dé waaw mooy maanaam dañ lay tëj tëj sa ngiru dund ñamu àndaloon ñi am vingt ans rakkam benn ci rakam yi defe naa am cinq ans ak ñeneen ak ñeneen condamnation yooyu dafi am euh, laaj na jeunes yi xam loolu mm-hmm. laaj ñu xam ne am na fu réew mi jaar mm-hmm. am na fu euh, génération bi ñuy foog ne tey ñun ay màgget lañu mm-hmm. am na lu ñu def euh, moo jur itam ba tey nga mun a toog am yenn liberté d'expression yi booba ñu fàttali leen benn rajo moo fi am benn télé euh, télé sax 1970 la am Sénégal 72 la am Sénégal euh, benn journal Dakar Matin moo nekk mooy maamu Soleil ak yooyu nga xam ni communication bi dafa metti woon lool mais engagement bi dafa dafa dafa doon dëgg engagement dëgg am na ñoo xam ni jaral na lool na leen seen bakkan rot te loolu mooy li am am na ñu bëri ñu seen bakkan rot ba ñun ci sunu jeunesse dañ daan ne. le vingt mooy la journée des martyrs nga xam ni dañu war a célébrer képp ku mos a daanu ci toolu xare Sénégal yooyu war nañ ko yëkkatiwaat ndax martyrs yi commencé wul deux mille commencé wul deux mille onze euh, commencé wul deux mille euh, quatorze ni deux mille dix neuf martyrs yi dañu yàgg di daanu ci euh, toolu xare Sénégal loolu war nañ ko waxtaanewaat donc bi ñu jàppee xale yi moom fekk Omar Blondin mu ngi France mbir mi nag comme moom moo indi woon ci famille bi xalaat yu bees ak xalaatu fippu ak xalaatu révolution nampatal ak résistance loolu metti ko mu ngi woon France moom ak Paloma ak euh, keneen ku ñuy wax Alimana Bathily ñu décidé ne danañu def comme condamné nañ leen condamnation boo xam ne xam suñu daanee sa sa sa rakk amul espoir u donc moom ci xalaatam hmm. libéré leen rek mooy li war a nekk mu décider ne dana def coup boo xam ni su jaree mu kidnappé ambassadeur de France mu la mu tëraloon mooy su jaree mu kidnappé benn ci ambassadeur de France yu nekk ci Afrique de l'Ouest mu def ko ngir laajte ñu libérer rakk yi en échange xam nga kooku xelam xelam gaawoon na lool ci jamono jooju waaw léegi mu décider loolu jël euh, décision ànd ak xaritam yooyu Paloma euh, Sall bu ñëpp xam léegi euh, euh, ñu ànd dem siri ci ay camp de d'entraînement jàng fa le maniement des armes jàng fa arts martiaux jàng fa lu ne jóge Syrie ñëw ba Algérie jóge Algérie dugg Mali ci seen yoonu ñëw Sénégal mais mu tombek jamono jooju président Senghor waroon def visite officielle Mali donc état malien organisé euh, ay ay ay rafle ak ay euh, comment dirais-je euh, de renseignement ba tombé ci ne Omar Diop Blondin ak ay xaritam ñu ngi Mali parce que yaayu Omar Diop Blondin seex la donc sëram Awa ci mu doon bàjjanam ca kër googu lañ dëkkoon jamono jooju Moussa Traoré après avoir fait le coup d'état ci Mamadou Dia euh, Modibo Keïta mhm. moo fa nekkoon euh, euh, nañ koy waxatee moo fa nekkoon président mhm. yoroon nag benn directeur général de sûreté de la sûreté bu doy waar ñu ko doon tuddee Tiekoro Bagayoko mhm. ku soxora soxora soxor li mu boom ci élite politique malienne kenn mënu la ko wax li mu tëj kenn mënu la ko wax kooku nag moo ñëw jàpp si Omar ci këru bàjjanam am yu ci dox yu bëri bëri bëri bëri toujours est ñu jàpp leen ñu teg teen fa di leen torturer hmm. wax nañ ne sax ba mu jàppee Omar daf ko da comme Omar dafa amoon xadar te mere woon na ko mer goo xam ni dégg naa ne ñu ni ca kër ga foofu Omar botti na ko parce que comme dafa jàngoon euh, xeex. art martial waaw. art martial hmm. tër na ko fa ci diggu cour bi ba ko ne ko kii moom danaa ko def lu hmm. bon yóbbu ko tëj ko ci congélateur. Hmm? waaw waaw euh, def ko ay service denc nañ leen foofu defe naa ay ñetti weer ñu jóge fa ñu extradé leen Sénégal hmm. biñ ko extradé Sénégal nag ca lañ ko tëj d'abord prison Forbé bi nekk Hann. waaw mais mu nekk fa di continuer xeex parce que même moom soo ko tëjee ci biir kaso itam doo am jàmm. di xeex di xeex di xeex ba ñu jël ko yóbbu ko gore Hmm. alors loolu damay yem foofu ndax am na film boo xam ni ñun seetaan nañ ko keroog. Hmm. Euh, film bu doy waar boo xam ni benn jeune sénégalais moo ko réaliser def ci nag génn ci nag ay documents exclusifs ak ay témoignages hmm. exclusifs yoo xam ne lii dow na yaram daw go yaram goo xam ni euh, laaj na sénégalais yi jot ci euh, xawma ci yan yoon la famille bi ak njaboot gi décidé ñu diffuser film boobu. mais man seetaan naa ko ñaari yoon. Mm. benn bi mooy première bi théâtre Sorano ak keroog bañ ko defee ca complexe Ousmane Sembène. Mm-hmm. am na ci ay témoignages yu bees yu am solo. Euh, kenn ci garde pénitentiaire yi ya doon garde Omar Forbé. Mm-hmm. joxe na ci ay seede. wante plus que ça. Mm-hmm. président Moustapha Touré. nga xam ni juge la. Mm. magistrat la. te moo doon juge d'instruction. Euh, ci dossier Omar Diop Blondin. Mm. bañ ko jébbalee dossier bi dafa am yu mu ci gis yu lënt xelam parce que dañ ne woon kii dafa xaru moom wax na ci film bi ne lim bi mu demee enquête yi ca gore ànd ak ña war a àndal yëpp la mu gis yaakaarul ne xaru mën na am waaw loolu nag su amee lu mu bon bon xanaa ñu ubbi waat dossier bi ñu xool la ca nekk loolu la génération yi tey cinquante ans après. Hmm. di laajte aussi simplement que ça. d'accord du lenn lu dul euh, kii génn na adduna hmm. wante ci gannaawam ay nawle ma ngi fi. Hmm. ndax nawle yooyu dañuy ne tek wala dañuy sàkku ci yoonu Sénégal. ñu ubbi dossier boobu ngir ñëpp seen xool xaw a féex. donte ni ñu ñëpp xam nañ ñi ñëpp dañuy dee. wante am na yenn dee yoo xam ni. dañ ko war a lijjanti ba mu leer. Hmm. ku nekk mën a noppalu tàlli ci biir bàmmeelam. effectivement ñi mu fi bàyyi tamit mun a mun a mun a ni ñu koy waxee faire le deuil parce que sa mbokk bu génnee àdduna effectivement circonstances yi leerul du mës a denc ci sa bopp donc dëj boobu du mës a du mës a fay mais monsieur le ministre ñu dellu ginnaaw tuuti euh, Omar lan moo waral ñu jàpp ko Mali rek indi ko parce que Mali waxuñu wala dégguñu en tout cas lenn lu mu fa def lu dul présence am ci territoire boobu wala lu ko jiitu dafa amoon mhm. njombe lu mu defoon ñu koy wër ba tax jógewul France directement ñëw Sénégal moo xew ba ñu jàpp ko noonu rek lan lañ ko doon reproché effectivement. xam nga xam nga non li xewoon moo di ay rakkam. Mm. ñu ngi kaso Sénégal. mu di benn élément. deuxième élément renseignements généraux yi war nañu établir ne dafa am lu mu bëgg a def. d'accord. mu di ñaar ñetteel bi peut-être mooy botti bi mu botti directeur général de la ah, sûreté bañ <laughs> koy jàpp donc euh, élément yooyu yëpp soo ko boole te nag ma fàttali na jamono jooju hmm. effervescence révolutionnaire dafa amoon hmm. ci Afrique Afrique occidentale française euh, mai 68 jaar na fi hmm. Euh, euh, une conscience internationale am. Euh, conscience boo xam ni ñun ñi ñëpp ñu bi ñu nekkee xale ñu ngi taxaw di manifester su Vietnam amee guerre ñu taxaw manifeste su fekkente ne le les les les les frères de Soledad aux États-Unis ñoom Angela Davis suñu manifester ñu ngi ci biir donc dafa am une une conscience universelle des enjeux boo xam ni mun nañu wax ne à l'époque il y une mondialisation. de la colère de la des jeunes euh, boo xam ni euh, euh, dañ daan liir lu bëri dañ daan et pourtant gis nga amul woon internet. Mm-hmm. amul woon téléphone portable. mais dañ daan wuti ay téere di ko jàng dañ daan toog guddi ba ay deux heures du matin trois heures du matin di débat sama ay grand ñu ngi fi ñu xam loolu. Mm-hmm. ñun ñun ñu ngi yaroo ci après ci mouvement su ànd jëf xare bi ñoom Landing Savané ñoom Decroix ñoo doon sunuy imam. Mm-hmm. donc dañ daan liir dañ daan jàng dañ daan gëstu dañ daan débat mënoon nañu toog di débat du matin au soir et du soir au matin mm-hmm. pour weccante xalaat pour gëstu pour xam li xew mm-hmm. donc euh, bokkatul ak fi ñu toll nii tey jamono ji nga xam ni c'est des monologues parallèles mm-hmm. avant c'était des jaloog constructifs mais fi mu nekk nii ku nekk da nga yor sa téléphone poster sa dara ci sa YouTube te ku la weddi nga mer or réew dañ koy defar ci ci confrontation dé mais confrontation d'idée ba nga xam ni dangay ngay ñi ngay waxal nga nga nangul leen ne même suñu juumee teg nañu seen juumte boobu ci xam-xam bu wér parce que adduna bi yëpp li fi dox moo di xam-xam bu wér te tegu ci dëgg ak xam-xam bu wér bu tegu ci fen donc ñooñu ñooy xeex ba adduna tukki noonu lay mën a demee mm. mais balaa ñuy mën a euh, am Euh, gis lu leer ñu bàyyi ñaari xam-xam yooyu mbëkkante suñu mbëkkante bépp borom xel mm. soo xoolee daa mën a ràññee mm. dëgg bi fan la féete. effectivement alors li Omar Blondin Diop doon xeex démb da yaakaar ne ba tey mi ngi fi. loolu mooy li gën a yéeme euh, suñu toogee ba soixante ans euh, après indépendance soixante trois ans cinquante ans après dellu Euh, àllaaxira Omar Diop Blondin ba tey euh, ñuy toog di wax affaire anti impérialisme anti colonialisme indépendance euh, xale yi léegi sax am nañu ay yeneen yeneen expression yu gën a yu gën a yu gën a tar ay France mm. dégage mm. ay ay ay ay ay yooyu suñ demee ba ba gis ne yooyu ba tey mooy dox ça veut ba tey la ñu ñu bëri daan xeex avant. Hmm. ma jëlee ko ma ma commencé sax PAI yi parti africain de l' indépendance. fàttali leen na ñooñu dañ leen jàppoon en cinquante sept pour des euh, actions dites terroristes. Hmm. parce que dañu jël les armes. dem ci <laughs> gannaaw Tamba xaw ma lan def ay makki bëgg a xeex. Hmm. ñu jàpp leen pas yi ba pare euh, exilé ñu mel ni Majmout Diop Majmout Diop. plus de vingt ans mu ngi Moscou dëkk foofu hmm. ñoom Tidiane Bay li lii dem daw Algérie yi ñuy daw donc fii réew mi dafa yàgg am ñuy taxaw di xeex hmm. mais li ñu mën a tey analyser moo di xeex yooyu yëpp soo ko boolee def bilan bi da ngay gis ne lañ daan xeex ba léegi jógu fi loolu nag <laughs> yaakaar naa ne euh, suñu euh, génération ak suñuy rakk hmm. Euh, war nañu mën a taxaw nag def taxaw seetlu ci suñ biir hmm. ñu xool ndax fii ñu jaarale suñu réew depuis soixante trois ans amul lu ci sooke te ñu war ko joyanti loolu warul woon jara xuloo ak xeex hmm. li mu laaj moo di xel yi gën a leer ak ñi gën a am xam-xam yu xereñ ñu déglu leen tuuti rek xam nga euh, damay citer souvent woyu Souleymane Faye boobu hmm. teylu leen teylu leen ndax ñun bëgguñu ngeen gaañu. Hmm. dafa am solo ñuy dégloonte mais su fekkente ne euh, euh, euh, coow li day day dafay ne kur ba kenn dootul xam lu rafet ak lu ñaaw dafay dem maa ngi doon lii rek tey ce matin benn post sànni naa ko sax ci Facebook bi. Hmm. benn mathématicien mathématicien bu ñuy wax Thalès. Hmm. mu ni des propos abondants ne sont jamais la preuve d'un jugement sensé. am nga wax ju bëri wax ju bëri wax ju bëri di wax di wax di wax yenn saa nga gis nit ku wax ba laxas boppam ci ay waxam te mm-hmm. yëgu ko mm-hmm. loolu jaru ko wax ba dugal na ñu tey nañu tey nañu tey te dégloonte am na ñu ñu war a jox kàddu ñu wax am na ñoo xam ñi war na leen yedd ñu am yar te déglu fu xam-xam amul leer du fa génn mm-hmm. man loolu laa gëm mm. alors mais lan mooy problème bi wax nga ne lañ doon xeex mi ngi fi te benn ci firnde yooyu mooy 2011. Euh, am nañu daje woon place de l'obélisque di xeex mbiram ñetteelu candidature. Euh, barki démba démba gaaya dajewaat nañ fa di xeexaat même chose loolu rek firnde la ci ne ñun yenn combat yi duñ ci avancé et pourtant c'est des combats qui coûtent des vies ay bakkan dañ ciy rot. Omar Blondin Diop euh, génn na àdduna ci lu mu doon xeex ku mel ni mm. Mamadou Diop génn àdduna ci xeexu ñetteelu mm. candidature ak yooya lan mooy mm. problème bi monsieur le ministre tey boo ko doon ah, analyser problème bi de man de man de sama sama wàllu bopp soxna Fatou problème bi mo waxoon naa ko fii deux mille ñu dàq ma ci gouvernement bi ma ni leen maslaa ak garaawul moo war a xewi maslaa ak garaawul dafa am yoo xam ni dafa grave ñu naan ko garaawul dafa am yoo xam ni dañ koy noppiwaale te waruñ koo noppiwaale dañ ko war a saafara te avancé xam nga soo ni nga ko waxee l'histoire se répète sur les mêmes causes xam nga tey ñu bëri ñi nekkoon 2011 place de l'Obélisque di xeex pour troisième mandat waruñu ne tekk tey loolu mooy ban ban dëgg ñoom dañ fi xeex ne du fi am suñ boroom ànd ak ñoom ca loola feeñal dogalam ci président Abdoulaye Wade mi fi nee newoon maa waxoon waxeet suñ borom yedd ko ne ko sa waxeet googu engagé wu ma yow la engage man sama dogal mooy lii wàcc nga bésu tey suñ demee ba ñoo doon xeex loolu ak fitna bañ ci àndaloon ak xadar bañ ci àndaloon ñu toogaat dix ans après problème bu mel noonu nara taxaw parce que man dama jàpp ne taxawagul toujours temps dama leen di man pour le moment fii léegi dégguma président Macky Sall ne maa waxoon waxet damay ne damay ne tekk hmm. sëñ Abdoulaye ne woon su lépp ne rëkk rëkk ne tekk tek woon la yoon man magu yaru mag ñi laa am léegi teey ak tekk dafa am solo ci jamono joo xam ni lëj na yëngu na wante la ko yëngal bëri na ci loo xam ne li ay njort la te amagul firnde donc fi mu nekk nii man bokk naa ci sénégalais yi ne président Macky Sall ñun li ñu déggagum nga wax moo di doo jiyem troisième candidature li ñu déggagum nga wax te fa la ñu taxaw ñu ngi xaar nag ba dégg nga wax leneen lu wuteeg la nga waxoon ak la nga diggee woon mais en attendant moom sax mun nañ ko teg de côté mais ñu léegi ñi nekk ci gouvernement am nekk ci partem nekk ci coalition am ñi nga xam ñi ñëpp ñu ngi woon place de l'Obélisque ak devant l'Assemblée nationale pour bañ troisième candidature waa anañu hmm. anañu ñooñu ils sont interpellés mënuñu ne tekk nag croiser seeni bras mel ni dara xewul am na lu fi xew dafa am ni nga ko waxee ay bakkan yu rot il y a dafa am depuis boobu ba léegi ay bakkan yu rot ngir feeñal euh, coono askan wi waaw suñ demee ba tey mais nañu wax ak nit ñi mais ne tekk rek ba pare bëgg bâcler débat sur le principe de la troisième candidature loolu mooy déjà première faute dafa war a un débat de principe mhm. sur la troisième candidature mais du doo leen ko fi waxee du fi amee ku wax ñu dóor la ñu gazé la mais ci loolu mooy ban démocratie démocratie dafay am ñu construire ko par des démocrates démocrate da ngay am loo gëm ba dara du la jaral nga soppi ko ngir poñetum àdduna mm. même su fekkente ne say intérêt wu bopp yow dana am lu lu ci sooke nga jàpp ne sama kàddu intérêt sama réew ak jàmm sama réew jaral na ma def nangam wala nangam man loolu laa gëm te duma ci génn Mm alors ñu ñëwaat ci Omar Blondin Diop euh, mi ñuy mm. waxtaanee tey 11 euh, mm. mai 1973 ñu xëy rek euh, ñu ne ñu kañ dencoon Gorée faatu na te dafa xaru mm. takk boppam pendaison lañ lañ wax wax nga ne léegi am na témoignage yu yu wane leneen bala ñuy ñëw peut-être ci li ngeen di xaar tey ci yoon concrètement naka ngeen dundee nouvelle bu diis boobu ku doon xaar peut-être ñu ñu ñu ñu bàyyi ko ba mu mun a mener le combat pour la libération de ses ñu ñun leen génn na àdduna nouvelle bi naka ngeen ko jotee ak lu ngeen def. ah fan yooyu man nee la ñun ci rakk yi la bokk mais man fan yooyu la Sénégal yëngu ba mu yëngu moo jur ci man sentiment révolutionnaire c'est-à-dire que nga am sa taaw mu jàng ba mu waree jàng donc nit ku brillant ba adduna bi yëpp nangul ko dafa brillant soo seetaanee film bi mm. daa gis ay témoignages mm. ay promotionnaire am yam jàngaloon jàngal France mm. ñëpp d'accord ne xale bi de am na lu ko yàlla may mu bokkoon ci ñi war a mën a tabax ëllëgu Sénégal euh, mu dee dans des circonstances non encore élucidées mais ñi ma la ko waxee film bi ma seetaan man ak ñu bëri ca salle ba dégg nañ ci ay témoignages yoo xam ni Sénégal mënatul noppi ci dossier boobu ndax juge d'instruction boo xam ni bii nekkoon na fi président wu Sénat yàlla dogal na balaa muy génn àdduna mu accordeel interview réalisateur film bi te bañal na ko ko woon ñaari yoon wante dafa toog ba mu yàgg moom moo leen woon nee leen nee ko kaay ñu waxtaan ba mu ñëwee mu dafa réalisateur bi neen daf ma laaj yow ban ñaata at nga am xale bi nee ko man maa ngi am vingt sept ans mu ni ko mais yow lan moo la jotee affaire Omar Blondin parce que ba muy am juddu wulo mu ni ko non sama génération dañu bëgg xam histoire u Sénégal mu ni ko mais man duma wax ak journaliste mu ni ko du ma journaliste man artiste la maanaam réalisateur la ci la góor gi am xam naa lu ko yàlla yedde ngir mu bàyyi fi témoignage ndax yàlla dogal na moom jotul sax seetaan film bi ba mu jeexee fekk na mu dellu ca boroomam wante bàyyi na fi témoignage boo xam ni génération yi dootuñu fàtte mukk ne am na yenn saay juge buy bëgg a def yoon mais lan moo ko ci fekk booba bi mu demee ba teg piste yi nga xam ni moom ci la bëgg a dañ ko nommé lu gën a kawee juge d'instruction. Hmm, génnee ko ci dossier bi. génnee ci dossier bi. te loolu. waaye yooyu mel ni yenn saa ñu gisul nduroog loolu. Ah, yéeme na de. Mm. soxna Fatou moo tax ma ne la taxaw seetlu war na am. Mm-hmm. parce que euh, su fekkente ne dañuy dund ci système boo xam ne système boobu. Mm-hmm. ñi ñaa ngi dee ñi ñaa ngi juddu mais système bi ba tey mu ngi fi. nañu gëstu lan mooy système bi. Mm-hmm. lan mooy système bi. bañ a joxoñante parce que euh, ñu bëri jaar nañ fii man ñu mel ni man jaar nañu ay weer ci gouvernement xam nañu tuuti ci mm. yëf yi di demee mais. su fekkente ni dañu bëgg defar suñu réew euh, du rek nommé nañ la rek nga ne pat nañu seet suñu bopp te wax dëgg yàlla assises nationales yi am na liggéey bu bëri bu ñu def euh, ci réforme yi nga xam ni war nañ ko def ci suñu ay institution président Amadou Mokhtar Mbow teg na rapport bu am solo sur la table wax ci ay recommandations naam lépp mënul sotti léegi wante am na ci ay xalaat yoo xam ni suñ ko booleeg yeneen xalaat yiy jib ci réew mi hmm. du ñàkk ñu gis yoon hmm. dafa jot dafa jot Sénégal mënul continuer nii euh, mënul nekk parce que suñu demee ba ci kanam waxuma la système bi mais machine bi yëpp mooy ne mbàpp ci kaw suuf hmm. dal ci suñ kaw te loolu gënul ku dem ba ñu mel ni man di am ay sët war nga ragal pour ëllëg mu jaral la nag tey nga def ci loo mën mais comme euh, dëkk bi nag du ñu dégluwante parce que fu nekk du ñu déglu li nit ki di wax. Mm-hmm. dañuy déglu kan mooy wax. Mm-hmm. su fekkente ne bëgguloo kiy wax. doo déglu la muy wax. Mm-hmm. te pourtant mën na am amul njëriñ loolu loolu loolu te te yenn saa yi ñu ngi fi romb ñu bëri am ñu xalaat yu rafet mais kenn du leen laaj man wax naa keroog ci benn émission ma ne man Sénégal bi ma xam du Sénégal médiatique bi li ngay gis ci YouTube yeeg ci TikTok yeeg ci su ne du du du du Sénégal bi ma xam fii xam naa fi ay nit ñu baax ñu ma gën fop mm. ñu ngi ne tekk toog ci seen ruq parce que kenn du leen laaj mm. te ñoom du ñu dem ci penc mii di fa laajte parole mais xamante nañ ci sun biir li ma lay wax nii xamante nañ ci suñ biir wala boog am na ñu xam ku xam ku xam mm-hmm. nañu dégloonte ah. nañu dégloonte man loolu mooy sama combat Euh, nañu dégloonte te di diisoo ak di waxtaan ba ñi nga xam ne ñi ñëpp ñoo gën a xereñ ci wàll wu ne ñu jiital leen waaw man loolu laa gëm man li ma gëm moo di euh, dañu dañu war a tàllal sàpp yi ba mu jub balaa ñuy seet kan mooy jiite mais réew mi nag bés bu nekk nga dégg kenn yëkkati loxoom nekk candidat la te suñu la gëstoo sa koñ kenn nawu la fa. Mhm. nañu xoolaat yëf yi nii ñu tubaab yi jàngale gouvernance est-ce que noonu la. est-ce que mhm. amul lenn luñ ci war a yokk. moo tax ba léegi folli lañ gën a mën ko fal. ah te folli bi itam dafay topp ci yaama mhm. neex. ak yaama jox. yaama neex ak yaama jox. bëri na fii ñoo xam ne ñii soo leen soo bëggee organiser manifestation xam nga ne soo fa demee soo ko joxee ñaat téeméer mu sol sa t-shirt ñëw di yóoxu. waaye yooyu war na xewi lu dee ni réew kenn du ko foye mm-hmm. lu dee ni réew dañu ko war a seet seetantal ko teg ko ci ay loxo yoo xam ni yu wóor lay doon mais suñ ko tegee ci loxo yu wóor itam bu duñ la bàyyee noonu rek dañu la war a di saytu mm-hmm. di seet ndax wàccagoo yoon loolu mooy ay institution yoo xam ni normalement dafa war a am separation des pouvoirs mm-hmm. doo jël doole bi yëpp jox ko kenn non da ngay jox ku nekk benn pàcc su fekkente ni kii doxalul kii yedd ko su fekkente ne kii day yàq kële téye ko mm. noonu moo war a réew noonu lay doxee suñ ko defaree noonu euh, fileeg ñaar fukki at Sénégal dana xar kanamu Sénégal dana changé mm. mais yaa ma neex yaa ma jox euh, te la ma la may jox kat su ma ko gëstoo ba gëstu ko alalu askan wi la da ko koo luubaloon mm. am na ñoo xam ne xam gis nañu ñuy joxe ay milliards di joxe ay ay ay ay di joxe ay cent mille francs di joxe ay kii euh, fuñ ko jëlee fan lañ ko jële wala dañu luxus waaw <laughs> waaw wala dañ ko luxus mm. parce que man yenn yi may gis nit ñi di ko dépensé damay ne waaw mais lii fan la jógee wala bokk dafa am ñoo xam ne ñi dañu doonu te ñun yëguñu ko mm. wala bokk dafa am ñoo xam ne ñiitu ay bitim réew ñoo leen di ngémm di leen jox alal bu ñu yàq mais loolu c' est des anomalies de la démocratie Afrique rek ngay gis euh, politicien jóge fële rek fële rek ñu naan mu ngekk ay milliards immeuble bële moo ko moom immeuble bële doomam ko moom immeuble bële jabaram ko moom mais loolu mooy lan doo gis loolu ci yenn réew yi loolu góom la beneen góom euh, boo xam ni euh, commission président Amadou Mokhtar Mbow defe naa junj na ko mais démocrate yi dëgg sincère ñu ngi koy wax moo di soo dem soo sooy politique d'accord nga am sa parti wala nga am lu la neex mais su la yàlla dogalee nga dem ba nekk président de la république da nga war a génn sa parti su ñu lay jàppale ñoo xam nañu la jàppale ci dëkk bi ci expliquer politique bi ngay doxal mais yow waratuloo sax présider réunion de parti parce que yaay président de la république. Mm-hmm. yaay président de tous les sénégalais. assise nationale loolu la waxoon. mais mais loolu mooy li ma moo tax ma ni la ay xalaat jëm na fi. nañu nañu ko waxtaanee ñu seet naka lañ koy doxalee mais munoo yow nga ne nga man par exemple wooteelu ma la sama dëkkandoo wooteel na la gañe ngeen léegi yow yaay président de la république mais soo bëggee doxal réew mi boole ma ci parce que man tam yaay sama président d'ailleurs euh, euh, Euh, ku mel ni Hadj Mansour Mbaye dafa doon ne président de tous les Sénégalais mais président de tous les Sénégalais mënul nekk président d'une partie de Sénégalais dafa war a yëkkatiku ar nekk nag la ni ni ni ñu koy waxee la clé de voûte des institutions mu nekk nag koo xam ni kii dafay tëdde njaxaanaay xam ne politique ay weccantee xalaat la du weccantee ku feeñ yàlla may na ma ndam maa ngi ci kaw mais sama ay nawle laa ko seqal te mandat bi juróomi at la suma ma paree damay jox keneen lenge yi te xaw ma kan la kon naa ko sóoraale ci li may def xam ne su fekkente ne def naa naka su noon noonu fii léegi juróomi at mun nañ ma jël ne ma ràpp ci kaso bi mhm. mbaa ñu yóbbum cour pénal international mbaa ñu fitnaal ma fitnaal sama njaboot mhm. loolu képp ku am xel xanaa lii li ma wax nii xanaa dig du ma woo ngir li mhm. lii kay damay jéem a seet naka la ñuy jaar pour que réew mi dox mais su fekkoonte ne baaba rek ak jubam ak yomb lijjanti <laughs> ak yomb lijjanti mais su fekkente ne réew mi lañ moo ñu soxal suñuy doom ñoo ñu soxal suñuy sët ñoo soxal na ku nekk fàtte boppam tuuti fàtte boppam tuuti du la wàññi dara te ëllëg ak si biir au moins sa askan dana xam ni mhm. am na loo muñoon ngir moom. waaw ah. loolu mhm. beneen góom bu feeñ ci mbiram euh, Omar Blondin Diop mooy li ñu tuddee tey euh, peut-être impunité ak euh, xëy na politique yi di dugal seen loxo ci yoon ni muy doxee wax nañu sànq ne juge d'instruction Moustapha Touré mi yoroon dossier bi dañ ko mujjee génnee ci loolu fal ko ci leneen parce que ubbi woon na piste boo xam ne xëy na bu ca gënoon a xuus dana am ñu mu teg loxo ndax effectivement am na njort yu mu amoon njort yooyu juge ci plainte bu woy jur wu góor wu Omar Damien Diop defoon pour cause et mhm. blessure volontaire ayant entraîné mhm. la mort ak mhm. euh, non assistance à personne en danger ndax njortoon nañu effectivement ne dañ ko dóor euh, te itam euh, wone woon signe de faiblesse wala ñàkk wéradi bala muy faatu te kenn walluwu ko ci boobu problème tey nan lañ koy fajee ndax lu jiitu loolu ki fi nekkoon booba jamono ministre du Jean Collin ministre de l'intérieur waxoon na bu ñu leen yërëm ñoom mhm. ñi nga xam ne ñooy frère Blondin ak ñi ànd ak ñoom mu mhm. mel ni kon gis nañu loxol politique ci yoon ni muy mhm. doxee ndax pénitentiaire ñoom euh, xëy na euh, ci prison yi lañ nekk ci wàllu justice lañu la ñu bokk mais immixtion boobu monsieur le ministre ñu ko doon wax ñu koy jooy tey doon ko wax démb itam lan moo solution ci sa xalaat ah, mooy li ma la solution moo di gis nga réew soo ko euh, yilifee ñun dañu bi ñu génnee ci indépendance gis nga li fi dox dañu am suñu indépendance mille neuf cent 1962 am loxo yu dugg ci diggante président Senghor ak président Mamadou Dia déjà mooy la crise de décembre 1962 euh, de 17 décembre 1962 mu doon un signal de rupture entre ñaari euh, xalaat ak ñaari yéene ci Sénégal ak ci Afrique rupture boobu dañ ko war a daté xool itam la fa xewoon lan la sans dugg ci ay tur wala ci ay lii di def chasse aux sorcières jarootu ko hmm. mais ay mbind a ngi fi histoire a ngi fi témoignage a ngi fi ñu xam lan ban yan rupture euh, euh, euh, idéologique moo am ca moment boobu yan cassure épistémologique moo am ci moment boobu ñu analyser ko seet lan lañ ci war a jëlee ci comme xam-xam pour defar tey ngir ëllëg mu di benn première rupture ensuite ñu jóge foofu soixante six festival mondial des arts nègres mu am un moment un moment boo xam ni euh, visibilité internationale u Sénégal ak Afrique ci wàllu aar ak culture loolu mun nañu ko génnee ci bilan wu président sengol ñaari at topp ci 1968 crise bi nekk mondial ñu ñi nga xam ni dañu jege France su France euh, sojee ñun ñu sëqat crise boobu laawe adduna bi yëpp du France rek wante réewu àdduna bi yëpp seen jeunesse bi nga xam ni depuis bi ñu génnee ci seconde guerre mondiale euh, période de la guerre froide kon yooyu yooyu yëpp dafay gudd pour ma ma ma layal la ko fii ñu ñu jeunesse mondiale bi yëpp jóg taxaw mm, remettre en question l'ordre bourgeois noonu lañ ko daan tuddee antérieur ngir xàllal yoon prolétariat nañ ko daan tuddee xalal yoon paysannerie xalal yoon et cetera et cetera et cetera toujours que est revendication hmm. euh, euh, universelle de la jeunesse pour ñu changer les paradigmes de la gouvernance mondiale ci contexte boobu la ñu mel ni Omar Diop Blondin feeñ hmm. du ñoom rek fii ci suñu réew ay ñoom Abdoulaye Bathily ci la ñu feeñ ay ñoom euh, Landing Savané ay ñeneen ak Mamadou Diop Decroix ak ñoo ñëpp c'est dans ce contexte de bouillonnement mm. la ñu la ñu la ñu feeñ ak ñeneen ñoo xam mun naa leen bañ a tudd parce que ay pour la yoo xam ni c'est resté dans la clandestinité mais ay kilifa mm. te ñu ngi fi ay kilifa ñu joxe beaucoup de choses def beaucoup de choses pour le Sénégal te euh, euh, seen seen seen taarix war nañ ko fësal war nañ ko waxtaane donc ci contexte boobu état répressif bi nga xam ne bii noonu la ko tubaab bi dessiné hmm. pour seen intérêt ñoom parce que balaa balaa balaa indépendance <laughs> nga baal moo foofu mais balaa indépendance hmm. suñu papa yi dañu doon nettali tubaab yi suñu bëggoon fayeeku impôt ku faye ku fayeeku ku fayul ci village bi dañ lay summi publiquement hmm. dugal la ci benn euh, grenier à mille ah ba mais fii li fi xew bëri nañu xoolaat histoire bi xam fi ñu jaar te état bi tubaab yi tëral ba tey am na ay mœurs li may tuddee mœurs politique euh, et mœurs étatique yuy dox ba tey dans le sens de la répression hmm. il faut ñu xoolaat loolu il faut ñu xoolaat loolu seet yan mesure wala lan la sunu philosophie àdduna lan la sunu dund lan la sunu diine mën a indi ci élément de pondération ci institution yi bëri na yoo xam ni ma jël la rek kaawu euh, euh, kaawu en matière civile. Hmm. bëri na fi ay sëy yu yàqu tribunal suñ ko waxtaanee woon ci kër ga mu defaru donc dama la bëgg wax ne am nañu ñun ci ñun ci suñu xam-xam ci suñuy jikko ci suñuy aada ay mbir yu rafet yoo xam ni suñ ko dugalee ci ni ñu bëggee yore suñu réew du ñàkk am lu mu joyanti hmm. ñun du ñuy tubaab faatu hmm. du ñuy tubaab te tubaab yi nañ ñu nañ ñu nañ ñu tënkee woon ak nañ ñu yore woon léegi dafa mel ni ay nit ñu ñuul ñoo ñu koy teg te loolu dañ ko war a waxtaanee mënuñu ci contexte bi démb yaa ngi gis manifestation xale yi génn di ki meex ay xale seen avenir la ñuy construire ñu mag ñi te féete kaw dañu war a déglu xale yi lan la ñuy wax yi lan la décoder message yi dem dans un sens constructif mais warul doon saa yu mbooloo génne te gis nga am na aussi loo xam ne nii ma wax ko balaa may daane gis nga manifestation saa yu ñu ko autorisé Sénégal kermesse lay doon nit ñi dañuy ñëw kaf ree wax ku nekk ñu dikkal saa yu ñu ko teree maanaam saa yoo xañee askan wi ak xam ak yelleefam hmm. deret tuuru waaw kon léegi jot na modalité d'expression de la parole publique de la volonté citoyenne ñu trouver ko ay mécanismes d'écoute et de prise en charge su ñu defee loolu dana ñu changer suñu réew pour suñuy doom ëllëg mais suñu leen yaree ci euh, euh, voilà les tupamaros comme avant euh, il faut nga defar cocktail molotov il faut nga taal fii il faut nga taal ay pneu pour rek ñu déglu la mm. dafay mel ni démocratie bi nekkagu une démocratie mature mm. wala boog ña koy dowal ils n'ont pas encore l'esprit et le cœur démocratique mm. te loolu c'est des problématiques yoo xam ni dañ ko war a toog waxtaanee ko ak xel mu dal su fekkente ne par exemple jaloog bi ci loolu la jëm mënees na ko dégg mais su fekkente ne dialogue la pour tëral ay pexe ak ay njuut njaaj ngir les même personnes ñi nga xam ne ñi ñoo fi nekk ci langue politique bi pouvoir comme opposition continuer di paasante bal bi ci seen biir man de maa man de maa mm-hmm. mais nee wax naa ma waxaat ko fi man ku nit ku ànd ak jaloog la parce que dialogue mooy dignité wu nit mm. nit dafay mën a d'abord am xalaat su amee xalaat boobu mu mën ko fësal ci wax mm. su ko waxee ba pare ñi may waxal am dégg suñu amee dégg ñu togg ko ci seeni xel ñaari xel yooyu suñu dajee ñu gis yoon man loolu laa gëm mm. boo wax naa ne président de la république comme fileeg mandaam di jeex moom mooy suma président mooy sa président neex naqari comme moom mooy président kàddoom dafa war a am solo su waxee ne damay woote ngir ñu waxtaan ci réew mi kenn mënul ne rek dès le bañ déedéet da nga koy ne ci lan la ñuy waxtaan te li gën a rafet ci république moo di président su bëggee def dialogue dafa war a bind bataaxal bataaxal boo xam ni du rek politiciens yi la koy bind daf koy bind d'accord politiciens yi ba pare fësal ko ci réew mi ñëpp xam ne président woote na ngir nangam ak nangam ci intérêt Sénégal ku ci am xalaat nga bind yónnee ñu jël sa xalaat boole koog pexe mi nga xam ne bii ñu ngi koy tëral bu boobaa dialogue bi dana sincère dana authentique dana inclusif li gën a bon moo di tëral ay pexe rek pour wala réformer kii révision liste électorale nu nga fii dugg fii génn xam nga rek seen technique yooyu ñuy def tout le temps euh, déggoo ci seen biir après su ñu defee su élection amee ki daanu dem toog di xaar ka daan su toogee ba mu yàgg gerñi gerñile changer li sénégalais wax parce que votu sénégalais yi quand c'est sacré su ma voté ne dàq naa <laughs> Abdoulaye Wade ak njabootam ñooñu dañu war a dem opposition liggéey mais mënuñu diggante ñaari échéance électorale mm. toxu ci ban mandaal lañ ko teg mm. mooy moo tax transhumance doon loo xam ne dañ ko war a xeex man samay priorité ci li ma gis ci li nga xam ne li war nañ ko waxtaanee moo di transhumance parce que transhumance soo seetee bu baax reen ya corruption la mm-hmm. corruption bi mën na doon corruption financière mën na doon corruption euh, institutionnelle jox la place boo xam ne bii mais par war askan wi la dans la mesure où askan wi dañ ko ne mën a tànn mm-hmm. askan bi tànn ne dàq naa président Abdoulaye Wade ak njabootam yow mu jox la lenge yi neel askan wi nee la yow laa diggante ñaari élection kaddu askan wi dafa war a doon moo féete lépp kaw ci diggante bi nga génne ki jël kële oo kii guddi ñooñu sax suñ koy def war ñu xam ne lii ñu nekkee du yoon hmm. war nañu xam ne lii du yoon parce que amuloo manda du peuple amuloo mandat du peuple peuple bi euh, kiiw la euh, joxu la euh, comment dirais-je légitimité bu tax nga mën a occuper un poste ministériel ou un poste de président d'une institution loolu mooy indi li fi xew maanaam ku amul mandat di wax loo xam ne lii amul cër pour wax ko amul cër pour wax ko am na fi ay ay détails yoo xam ni suñ ci duggee man du ma tudd tur mais danaa junj ay actes yoo xam ni sénégalais yëpp danañ xam ne li kii lii lay wax te loolu la débat public bi war a demee du ñu joxoñ kenn du ñu jobbar kenn parce que jëw dafa aram euh, yooyu yëpp baaxul hmm. mais am na ay jëf yoo xam ni képp ku ko def hmm. ñu gisee ne ne na ne na ngi nii soo ci euh, ballon mënu ko bañ a wax kenn mënu ko bañ a ñaawlu effectivement ah wax dëgg yàlla hmm. te te loolu te loolu du bañ nit ki jëf yi nga seexlu jëf yi nga seexlu du bañ nit kii déedéet ñu ñu ñu bëri ci acteur politique yi fii man samay xarit lañu ndax comme gis nañ ne man du ma politicien du ma du ma du ma parparloo mais même ñi nga xam ne ñi ànd am naa ànd na ak ñoom ay ati ati at su ma gisee ñu def naka du noonu su ma mun naa leen baña a topp ma croiser samay bras loolu laa gëm te jot na nag jot na nag jot na de réew mi ñu taxaw bu baax a baax a baax wax ci bëri na wante lépp lu ci dëgg nit ñi xam nañ ko lépp lu ci fen nit ñi xam nañ ko jot na nag su benn nit waxee ñu ne ko hé kaay toog lii nga wax teguwul ci yoon lu tax nangam ak nangam ak nangam su nangoo dégg-dëgg ñu ànd ak moom su nanguwul dégg-dëgg ñu teg ko de seet ñi nga xam ne ñi dëgg moo leen ñor te ñu defar suñu réew faatu Euh, am na am na solo te itam jot nañu jublu ci parce que euh, la fi daan xew ba tey mooy wéy di fi xew muy firndeel ne avancé wuñu ci euh, ponk yu baree bari bokk na ci wàllu justice wàllu politique ak yorin week ni institution yi doxee alors pour xëy na dellusiwaat tuuti ci Oumar Blondin 2013 am na ci frère am boo xam ni yëkkatiwaatoon na mbirum Blondin ak ni mu génnee àdduna muy docteur Diallo Diop ba waxoon justice bu Sénégal ñu ubbiwaat dossier bi loola mhm. mooy bi ñuy màggal 40 ans ginnaaw bi mu génnee àdduna fukki at mhm. ginnaaw loola yéen ngeen ñëwaat lan mhm. ngeen di xaar ndax 2013 ak léegi yaakaaruma ne benn suite am na fi jóge ci wàllu justice lan ngeen di xaar yéen ci càkkuteef bi ngeen yëkkati barki démb bi ngeen di fàttaliku juróom fukki at ginnaaw bi Blondin génnee àdduna li ma la doon wax sànq moo di diggante 2013 ak 2023 am na lu dox ci diggante bi ah. li dox ci diggante bi moo di juge d'instruction ba yoroon dossier bi wax na te kilifa la yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana kilifa la nekkoon na fi président Sénat ci affaire élection yi kilifa la juge bu ñëpp xam fii génne na ay kàddu yu bees yu war a tax képp kuy magistrat ci réew mi te sa njàngum droit sell te boolewuloo ci par parloo nga déglu li sa naataango wax nga mettre ata nga jël sa bopp teg ko à place xoo xalaat ëllëg man ak askan wi naka lay demee parce que moom dem na ba toog ba ala la traite mu ngi toog mu ngi sol jogging bu bleu bu rafet nekk këram wax ay wax yu teey teg ko ci xam-xam teg ko ci procédure pénale wax ne nangam ak nangam di su xewee war nañu gëstu nangam ak nangam ba ma yore dossier bi sama yéene moo doon woo diw woo diw woo diw woo diw tuddul tur mais tudd na ay fonction ay responsable ne diw ak diw war nañu mën a waxaat ci lii ndax lii lënt na lii leerul wante yàlla xiir na ko ci ba muy génne mu ne man nag te loolu nit ku nekk am nga si droit mm. man de sama intime conviction mm. te juge bu nekk dañu lay laaj sa intime conviction mm. sama intime conviction mooy xaru amul ah loolu su kilifa gu day noonu su waxee loolu dix ans après parce que deux mille euh, deux mille euh, treize effectivement ci quarante ans yi élément boobu amagul woon waaw ah, mais bi léegi élément nouveau am na mm-hmm. ah élément nouveau boobu moo war a tax suñu demee ba cinquante ans yi jot yàlla ñu ngi ñaan yàlla mm-hmm. buñ fi toogaat wala sunu ay rakk toogaat dans soixante ans di poser les mêmes questions loolu yàlla nañ ci yàlla musal mm-hmm. donc moo tax man bokk naa ci ñi ne affaire bi léegi ça dépasse la famille ça devient un enjeu de génération parce que man ñaata nit laa xam ci événement yi soixante treize yi ak ñu génn àdduna ñaata bëri na <laughs> grève yeeg kii daw fii ñaata kër lañ fi yàq. monsieur le ministre est-ce que yaakaar mën na ci am ndax kii euh, moom ci prison la faatoo am na fi ñoo xam ne ci garde à vue garde à vue maanaam ki lay garde laa war a gis. ñu ne nit hmm. ki na fa bakkanam ñu naan dafa xaru xaruwul mujjul fenn ak yeneen ak yeneen yu bare bare bare euh, défenseur des droits humains bu ñu lay limal euh, ñi faatu ci détention euh, yooyu garde à vue yeneen mais da nga yéemu ndax mais ah. Fatou du Fatou Fatou yi rek ñaata sàcc lañ fi jàpp rek ñu dee ñaata ñaata ñaata cest à que hmm. dafa am loo xam ni sunu sunu sunu culture de la citoyenneté ci boppam dafa am lu ci sooke. impunité bi daal. waaw dafa bëri te te loolu te loolu jot na te loolu ñan ñoo koy faj su dul homme politique yi parce que homme politique yi ñooy exercer le pouvoir en notre nom mhm. du commerçant yi ñooy exercer lu pouvoir ñii dañu nekk dans des trucs euh, dans dans dans dans des activités euh, comment dirais sectorielles mhm. mais ñii nga xam ni ñooy taxaw ci plateau yi ci meeting yeeg ci organisation yi pour laajte kaddu réew mi mais ñooñu dañu am responsabilité te ñooñu lañu ñu war a waxal c'est-à-dire que war nañoo àgg foo xam ni politicien mënta taxaw di wax fen te ñëpp duñ ko ne fen nga <laughs> exigence démocratique la exigence démocratique escroquerie bi en politique dafa bëri te escroquerie financière yooyu rek la ñuy toppatoo mais escroquerie par la pensée nga taxaw di wax te ñi la toog di déglu ñëpp xam nañu li ngay wax gëmoo ci dara te kenn du la ko wax <laughs> c'est mooy li ma la wax le maslaha el graaw mais nga wax ñu tàccu la ba pare nag man gis naa ci yu bëri sooñ paree fa meeting ba da jeexee ku nekk taxu ci ba ah man de awma paas de man de ah man de ba may ñëw kii moom indi woon te dem na ah man de kaar ba ma indi woon dem na loolu mooy lan hmm. comédie moo fi am comme di mobilisation Ndiaga Ndiaye jël ay doomu jaambur ak ay jabaru jaambur duy leen ci kaar bu mu fees ñu ñu ñu ñëw di la tàccoog di kii ñenn ñi ñu ci bëri ñi seen sëy dana ci yàqu parce que ba ngay dem taggoo lu fi xew yëpp nit ñi xam nañ ko nañ bàyyi loolu jamono jooju dafa war a jeex ñu toog defar sunu réew man loolu laa bëgg loolu laay ñaan yàlla loolu laay xëy loolu laay fanaanoo nañu toog xoolaat sunu réew. fi mu jëm du foofa ñu seet naka la ñu joyante li ñu fi war a joyanti nañu seet ñi nga xam ni ñi jubuñu ñu jubbanti leen ñi nga xam ni ñi sàcc lañu ñu jàpp leen ne ràpp ci kasu bi ba ñu changé jikko man loolu laa gëm. c'est important euh, idéologie yu Omar Blondin Diop doon euh, défendre mm. ak li mu doon euh, bëgg a mu dox ci Sénégal yaakaar naa ne méngoo na ak Sénégal bi ñu bëgg bi ñëpp bëgg bi nga fi wax léegi Sénégal bu jub bu jaar yoon bu ñuy respecté ak ak yelleefu ñëpp kon monsieur le ministre foofa la ñuy yem ci waxtaan wi tey amoon mbégte lool dalal la ci gërëm la bu baax a baax Euh, waaw itam wax nañ fi lu amal njariñ nit ñi euh, surtout fàttaliku Omar Blondin <coughs> Diop muy génn àdduna fukki fan ak benn weeru mai atum 1973 ca gore gu ñu ko tegoon problème la bu fi am ba tey mooy tee nit mu faatu anam ya mu faatoo tey xel mais dara du ci leer kon góom boobu moom ba léegi moo ngi fi ñu bàyyi la nga tàggoo monsieur le ministre. xanaa di la gërëm ak di la sant Fatou ci sa taxawaay ci sa xereñ ci métier bi nga tànn mu di métier journalisme. Euh, nga di jigéen wax dëgg yàlla bu am ay valeur di am ay waxtaan ak yow yu am solo mu neex ma lool moo tax saa yoo ma wooyee damay sawar lool jërëjëf. jërëjëf monsieur le ministre Amadou Tidiane Wane moom la ñu doon dalal ci seen émission démb ak tey euh, di fàttali ne waxtaan wi mun ngeen ko teewluwaat ci suñu chaîne YouTube Rewmi TV officiel di leen dig daje beneen dimanche incha allah waxtaanee leneen ak keneen ñu yendoo jàmm ak keneen ñu yendoo jàmm ak keneen ñu yendoo jàmm ak keneen ñu yendoo jàmm ak keneen ñu yendoo jàmm ak keneen ñu yendoo jàmm